ndogule dafa ñëw ak ñëw ak feem yu bees waay ñamal ñu ci Tann Bombé vagabond la ey Jean Michel Guesman la Rama Thiam jéegu puso ey maya waxkat la Tony chef de quartier bu dëgër fit waaye xam nga lu jaaxal quartier bi du ndogu nga naan Sénégal Sénégal Sénégal tànn tànn kaay kaay yaay yu waay doon jaay yeeg mu yam ah déet yaay papa yow papa koy gi tey am perte vingt cinq jours vingt cinq jours lu waay doon jaay tey ya yamb moom tey fi mu tooy nii <laughs> xëy commencé naa day yu tooy ci wooy wàcc wooy wàcc <laughs> ah wax nga dëgg. ñu mhm. man kay man maa la soxla woon pour waxtaan. ba jàmm ya jàmm la alhamdulilah rabbil alamin ay ca ndax euh, xam naa ne doom ju bëgg a bàyyam nga. ah kenn doom ju muñal bàyyam nga. dëdd ya dëdd doom ji toppatoo bàyyam nga xam naa da ngaa yorul rek waaye boo yoroon te jii dara du ma dal. effectivement effectivement effectivement. Hmm. moo tax sama xel mi am lu ma xalaatoon. yoo xayaat yow. Mhm. yan yëpp. monsieur le maire. waaw. comme dafa ne bu defee desee ñetti fan. ñetti fan. waaw mu joxe li nga xamante ne moo jëm si koorte gi. poyte kooy bi waxut yooyu de. dafa ne bu nii suba la koy tey wax. suba la koorte. waaw. ah ba tey ba tey. waaw. mu am nag xalaat bu mu si xalaatoon. ah. yaakaar naa ne xalaat boobu mooy xalaat bi gën. yow xayaatoon papa ba dangaa nee duy xaalis waa tooñ bi encore. on dirait ñu ne seetaan nañu. ah tooñ yow xalaatuma ko li ma xalaat ndeysaan pour mënta pour yow ah. ndax dama xalaatoo ne bu xaalis bi ñëwee. Uh-huh. yow laa war a yónni nga def ko si en ma def ko si enveloppe nga dugg kër par kër di leen jox. alhamdulilah yabbi aayami ayaahu akbar ah bon. hii papa nag bu boobaa nga xam ni maay te jom maay jàmbaay papa man wax dëgg fa yaaya dama yaa bëdd te yooyu yaaya doda yow xam nga ni tax man dama yaa bëdd te xayaat bu yafet te yafet nga xayaat papa te xayaat bii mu xoo xayaat ci àdduna man ma di xaalis bi def ngeen nga def ko ci envoyé ma dugg këy pëy këy kenn du mante ñëpp dinaa yéen jox yaa iyaa iya yaa papa papa musoo xayaat xayaat bu yafetee nii macha allah xam nga lu kontaan nii moom moom daf maa <laughs> papa yan nga yaakaar. ah kan waaw. ko joxe man kay yow laa war a xam. yow da ngaa yaakaar ni boo ma joxee xaalis bi dama tey li nga kontaan dama tey yóbbu ci naaj. li nga kontaan moom a kay moom boo boo ko. ah ma moo yow <laughs> papa du ma tey yóbbu ci naaj bi de. Ah. te xaalis bi du ma ci njub yan du ma ci def daya papa xam nga yen moo tax ma tontaan. mooy fàtte yu tey benn anecdote yan mooy bi ma yónnee fii ne ma demal nga wax waa tooñ bi dañuy def jayo ma sooy sama daay ma yaa bañ teel nan ta dem man tate maa nan doo dem muy dugg këy pay këy këy pay këy këy njaayeen këy njuubeen këy mbuubeen këy këy jaween këy faayeen papa yi ma ci gën a naqay ci jaayog bi ma doon dem di ko yëg yi hmm. mooy këy ku ma dugg yeg ñii di ñu xas naan ay yii baa ngeen di yegg ñii naan ma seen ponka yaay bi ñii naan ma ta papa daa jaay ñii naan ma ta papa ak ñaawaayam bi ñii naan ta papa comme butti ñii naan ta papa comme goyo ñii naan ta papa comme daam gin ñii naan ta papa di ma xas-xas yoo xamante ni papa man damaa mujj mais mais mais mais teewu yónni gi nga ma yónni respecté naa to ma def to yooyu ma tax a tontaan ndax bii yoon enveloppe ya muy xaalis imaginez bi mu duggaatee ci kër yooyu ñooñu daan ñu xas di leen jox enveloppe naa ñu am tam papa yi te jox nee na monsieur mais ya ko jox yooyu ma tax a tontaan yooyu ma tax a tontaan waaye du daya du daya na sa xëy day na sa xëy day du daya de. ah comme noonu nga ko xalaatee. sama sama xol seet ah. ndax xam naa ne dëgg la ñooñu da leen bëgg a wan ne eh, la woon woon dina. waaw mooy xam nga yan moo tax. Hmm. mooy papa xam nga yi ma jaaxal ci Sénégal ci dëkk bii ñu ne. mooy ki yay tàdd tey moo yay xat tuba. ki yay tàdd tey. moo lay xas suba. tuba même pas 24 yooyu mu xas ya. wallaahi li koy Sénégal la. waaw moo tax ku si daggal mu ngi ñëw bu léegi mu ngi. waaw yoon nag. ñoom ñoo ñu xas démb. fas mm-hmm. yéene ñoo tagg tey. commencé ñu tagg kat. ndax ah. ñoom am nañu yaakaar fu mu romb ñëwee koy c'est le quartier. Eh. yaay suñu yaakaar de wala ko yàlla baax na. yàlla xam nga yow nag cat di te yow yaakaay sax dayaa jiitu man tey yi tama xëy népp ak yi may xëyaat mooy yaaya bu yo monsieur mais pon waat hmm. monsieur mais bu yo pon waatee papa sa koy teg yéen gii moom dem ba dina sax kaw ko fa ànd ak kama yaay moo doon waaye nga dem ko Côte d'Ivoire ànd ak ma defee loolu du ma xaj ci koñ bi ah waaw yii te yow yaakaar jigu ya te papa gis nga yi bi dën a bon ci àdduna cat dama yotoy wax tey cat di dën a bon ci àdduna mooy nit kuy catu boppam te papa yow sa yaamin daa ñuuy buy yaataay buy catu ta bopp yooyu baaxuy waaw buñ ne ñu ngi ñuy commencé tat da nga mbat mbatt wàccee sa mbatt yi décence essence yi tey. waaye nag ku ñu wax say baaxu maam nga yëg sa bopp nag. Hmm. ah ba may romb dañuy wax sama baaxu maam yu baax. sama maati maam li ñuy wax tey bu amee moom tama du tama maam tama maam deful day moom tey yooyu bu amee moom baaxu mu tee mais yow waaye <laughs> du tama maam wax dëgg yàlla du tama maam nag baax <laughs> ma. d'accord léegi ma préparé envoyé. yow demoon nga xanaa balaa ngaa pare enveloppe xaalis bi yegg si. ah pour man ah, nga yaa xam te nga. pour man daa yegg si eh, tax dina ñëw bu soobee yàlla. waaw daa ah, tooy. dina ñëw bu subaa man maa ngi génn. waaw d' accord dina bu subaa. ba ci tanam nu man man kay maa war a génn nii. gis nga ki ma doon wax ak yéen mu ngi ki ma doon wax ak sama xarit boobu kii moo may woo <laughs> moom la gisoo. njuug njuug. waaw. <laughs> papa dinaa am tepp di tëj. Eh, astafurlah astafurlah astafurlah. wuyu too wuyu too. astafurlah dinaa ko wuyu. <laughs> papa bi ay papa. ñooñu ñaan dañu ñaan dañu kii rek dañu ñaan dañu ñaan rek. man dama yàggay xaaj bi yow monsieur mais naa jox nga jox ko njuut de ay bu boobaa. dama dina ne ëppi buur. man ba papa maa ne def. kii ñaanal na ma jàmm nii. nen ma tamit dina bi buum xaalis boo ko lekkee bu man man damaa xalaat lekk xaalis xanaa balaa nga lekk xaalis gis xaalis góor gi maa non <laughs> mais Jean mi tey affaire bu gayaaw moo ma day non Jean mi dama naan ay xam di yaay yabbi ayam Jean mi tey yii moom du mbuyu mbu mbuyaa taya Jean yi ma yaaya defay nii non dama xëy fajar tey yaaya tegay ma ay hamburger ak ay saway ma ah, ah, ah, ay xam di yaay yabbi ay ma am benn doo déju déju ba ma paye Jean mi tey Diop nee na xaalis bi man maatooy def ci enveloppe yëpp. ci toñ bi di ko séddee. ah en ah, ah, xaar waaye dafa ah, fan la ko fan la teg yow moo jàmm tey xaaj bi daa ñëwutul. monsieur mais dafa ne bu ne suba koy te yey jox sam papa xaaj nee na xaaj bi man mi yetoy jox ma def ta ci enveloppe yóbbu ko këy pay këy di ko séddee. ma ayoo ñoo am. fan. këy. jaami tey de man ànduma ak yow yaa may déet man dinaa ànd ak yow ak man ndam yi ma nayee am ci toñ bi tigte bi ma nayee am ci toñ bi dugg kay këy pay këy ñu di ma tàdd jaami tey ma àndee ak yow dañ may gën dañu di gën a xas waa këy gi. foo man damay bañ a ànd yow ci këy jàmbuñ. nga gis fa portable yanday ko waaye may jox nit envoyé bi envoyé bi avant moo yedd ci moom nga jël nga tafutu ah. te yooyu yaay bañ. xanaa eh, xanaa xaar jàmm bu man ma laa xaar jàmm. eh jàmm tey. xam nga diggante ay yàlla xaar jàmm man. tam papa daal man ya ko tant nee na man maay dem séddee ji xaalis bi man maa koy séddee ji dégg nga. dama yëttoo doon yëdee yeeg. mosuma laa xaar jàmm sama diggante. dama yëttoo doon yëdee ndax bu fekkee am na ñu ma fàtte na fàtte yi may. Ah, waaw waaw xaar xaar maa ngi ko maa ngi ko. xool xa baax baax baax mu ma ko quoi. waaw Juday. Juday Juday. xool. waaw. xoolal germain. desman hein. sama awro mu germain. yow dafa dafa ba mu baax. mu sëñ la germain kon. envoyé ko desman. waaw ku nekk am ku nekk am. jaami tey monsieur May booyewu ci yi de. Eh, eh, société bi ñun bokk nañ ñun dañuy controversé as xaasu askan chaque jour ma ci France chaque jour nooy jënd butéel ak xaaj butéel ak xaaj yooyu moo tax ngay butéey butéey dees ak xaaj moo tax ngay contribuer ci askan bii nag doo bii moom dooleen ci contribuer moom xamante envoyé bi moom dooleen ci contribuer ci kàttanu ah, yaay kaay xaa xaa moom damay dem waaw waaw waaw paa bi laa waxal paa bi laa waxal moom xaaj fa nekk moom moo ko bul fàtte kenn maa ni xam nga gars yi quoi xool waaw ah Diop waaw Diop. ñu ngi wax ñu ne ñu kat moom moom yóbbee ah. nga dribble ma loolu ngay wër. non non. non non. xanaa ah. bëgg a dribble. yow xamoo xamoo ñëpp ñëpp war am xamoo la. ñëpp ñu war am xaw ma la. waaw tan xam na kër yëpp. ah sama yaay bu mu bañee wax fii daa am sama damaa woon wax kër yow. maanaam sa ah, ma hmm. foo demoon. ku la yónni. yow. man maa la yónni. waaw daa mën a fen. ah man yónni naa la yow. man dinaa la yónni. waaw man du ma la yónni. waaw su ma waxee. su nit ñi baax ñi du ma la fi yónni. su ma waxee yow daa ko loo ma def. bu ma waxee yaa ma daa ko. waaw su ma waxee yow. ma toj sa salaam. waaw waaw léegi du yàgg. loolu dafa ma jox rek sa yow. xool. waaw xam xam xam foo xam. moo xam. quinze mois nii quinze mois nii. waaw xaar mu ñëw ba mu fàtte. incha allah. Ah, dama ne ay enveloppe ñu ay yére bees. ñu sangu. xaaral. bàyyi gees. bàyyi waaw waaw waaw. loolu oh, baax na. ñu bàyyi gees su ay ginaar. ngeen bàyyi gees. waaw jënd ginaar ginaar lañu jënd. bàyyi leen gees. waaw man xam xam xam xam man yaay président Guinsman. waaw association des Guinsman da ngeen am créé na. waaw xam naa ni ne yaa alaaw. ni ne yaa Guinsman. waaw. amoon sa sa sa monsieur Diop sigil sigil. amoon sa ginnaaw bii foor na bii ban la ah. synthétique synthétique. ak ah, kii kay moo tax kay xëy na trop. waaw xam nga am naa ni ne yaa boobu rek agri de commerce. looy jaay. ah pour germain la. pour. pour assurance. seen assurance yéen germain. waaw. Ah. day xaar bu génne. waaw xaw ma waaw waaw fàtt fàtt la. waaw dina leen fàtt. ah mais ak nga. damay gaay. xaw ma dëgg. loolu moo xëcc kon. ah baax yow. Ah. jaay jaay laa joxe ma ma baax. jaar. kii boo yoree asima ak nga xam ne kam di nga jaar wala doo jaar. Oh. yow. ah waaw la. xool awoon. waaw dinaa la sóoraale demal rek. waaw kay rek. waaw gën ma ànd waaw d' waaw. d' waaw. xool waa nga. kii doomu naa ko. kii dinaa ko yónni mu ne mooy dugg si biir commune bi ma séddi xaalis bu mu dem mu damm ko si bos jënd si ay butéelam naan synthétique te bu forom bii synthétique la xaw ma saxatique bii moom foor na. man bu may dugg sax sama la dafa ñëw ak feem yu bees. waay ñamal ñu ci. ndogu leen dafa ñëw ak feem yu bees. waay ñamal ñu ci. Tan Bombe vagabond la. hey Jean Michel Guèye man la. Rama Thiam Diégu Pousso.